lu mel ne abu yadu aji weex wala ahmaru aji xong wala asfar aji gel yu mel noonu génn nañ ndax ñoom boo leen doon jigéenal duñu am ta kenn du wax ahmaratun jublu ci aji xong ji jigéen kenn du wax abu yadatun mbaa asfaratun déedéet dañuy wax abu yadu baydaawu ahmaru xamraawu asfaru safraawu yu mel noonu nga xam ne amuñu taa waaye boo jógee def ñu bañ yooyu kenn du leen jamu jamu muzakkar mbaa muy afan la tafdil nag moo cay topp te mucc mbaa muy afan la tafdil afan tafdil mooy baat bi fi jëkk gën a nangam ni ki aalamu ko xam akbaru ko gën a mage asxaru ko gën ndawe kooku mën nañ ko jamu jamu sàkkar aalamu nga ne aalamoona asxaru nga ne asxaroona akbaru nga ne akbaroona alif dana nekk mandargam rafa ci barab muy tasniyatul ismi tasniyal tasniyal ism rek moo war a rafaay alif tasniyal ism loo koy nga ne mooy luy tegtale yaar te alif ak nun gu kasara mujj ca baya ak nun gu kasara des ne moom ko yomba xàmmee la boo gisee baat bi muy firi ñaar te mujj ga nekk alif ak ni wala mujj ga nekk yaa ak ni wala rek mooy tasniya ki boo nee muridaani wala muridayni wala boo nee muhammadaani wala muhammadayni wala boo nee rajulaani wala rajulayni wala muslimaani wala muslimayni wala saalihaani mbaa saalihayni lu mel noonu mooy tasniya lisim tasniya alif lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay xafade nun dana nekk maamar gum rafaa ci benn barab mooy fi xaal juróom fi xaal juróom nag moo di tafxalaani yafxalaani tafxaloona yafxaloona tafxaliina dañ koy tuddee fi juróom sax moom waaye amul juróom fi xaal yoo xam ne moo fi'lu mudari mo xam dal mom da nga ne xew xew la bo xamne ñaara ko def manam ñaar ñu nek fa manam ñaar ñu bañ fa nek ko da ngay jokk ci mujj alif ak nun bu fa ñaar ñu nekké nga tambalé ko ta bu fa ñaar ñu nekkut nga ko ya lolu moy tombé tafalani yafalani ñi ko wax niki bu doon taakulu faaw nga ne taakulan ngeen lek yeen ñaar bu fi nekk nga ne yaakulani bu dee tashra bu faaw nga ne tashrabani bu dee ñaar ñu nga jàkkaaru bu dee ñu fa nekk nga ne yashrabani bu dee yaqraw bu dee ñaar ñu fa yëg nga ne yaqraani bu dee ñu fi nekk nga ne taqraani xam kooku moom mooy xew-xew bu ñaar def bu ko mbooloo mu góor defee itam da nga jokk ci mujj waaw ak noonu mooy na nga daa waxee genn góor da nga jokk ci mujj nag waaw ak noonu dik bu dee taqoolu nga ne taqooloona ndekam dañ faa nekk fu nekkul nga ne yàqooloona bu dee takkoonu nga ne takkoonoona da ngeen nekk wala yàqoonoona ñu fi nekk tane nag ñoom mu ko fi nekkut ku mën doon rek moom noonu lay mel wala mu loolu moo andi tafaloona yafaloona genn jigen nak mom faaw dañuy waxante ak mom moko tax bokk final juróom na nga da waxe genn góor xam taa moo koy bu de genn jigen nga cey boole yaag noonu ca mujj ga bu don takkunu nga ne takkoo nii bu de takkolu nga ne takko liina bu nga ne takra bu de tusal nga ne tusal xam jokk yaag noonu moy final juróom Ya nga rafa nga ñëw ci nasab àttale ci ihraab boo xam ne doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko waaye am na juróomi màndarga yoo xam ne fu mu fi war nekk boo fa demee fekk fa kenn ci ñoom nasab moom mooy ci ëppale li mu ay màndarga moom juróom la am bu ne luy aateem nasab daal moom kenn juróom yi war na faa taxawu jëmmal ko te mooy fata alif kasra yaa azaf noon juróom yaa ngook fata dana nekk màndargam nasab ci ñetti barab li si mufrat mi benn jamu taksir muy ñaar ak fiilu mudarihu mu dara jokul ci mujjam te ajina sa tabbi ca yett ñoo war na sabi fata ngir ñu bañ faté mokal ga dañu baamu tari tarib ne li ci mufrad lo koy xamé nga ne mooy luy tegtale li ci mufrad nak dam lay rafaaye fata lay nasabe kasra lay xafade bu nango sotu ko jamu taksir koy xamé nga ne moy fu yar te waaw ak nun gu fata mujju ca ya nun gu fata mujju ca alif ak taju mujju ca jamu taksir nak dàmm lay rafaay fataale na sobe kasra day xafada man nga sotti ko fii lu mudari mu dara jokkul ci jëm juroom la waye man nga gàttal fofu ne yar la rek moyoru mucc ak maragu mucc teew na bu la neexee delloo si mokkal ba waxaa juroom yep waye waxa nañ ko do ayo man makay bam wat fi ci ma toll yar la dal mom fi lu mudari mu wéru mi dara jokku ci dàmm lay rafaaye fataalee na sobe sukkoon lay jassame ak fi lu mudari mu ràggu mi dara jokku ci dàmm lay rafaaye fataalee na sobe rafrag lay jasame alif dana nek mandragam nasab ci ben barab moy li simi lisimi juróom nag nak modi aboka akhoka amoka foka zumali lisimi juróom nak waw lañu rafaaye alif lañu nasabe ya lañu xafale la neexee nak nga baamu sart yi ne kaw juróom-ñaari sart tariwaat ku wéy kasara dana nek mandragam nasab ci ben barab mu jamul man salim ci man salim lo ko xamé nga ne moy lu ëpp yaara te fak taaju tali mujj ca jam man salim nak dam lay rafaaye kasra lay nasabe kasra lay xafade yaa dana nekk màndargam na sab ci ñaari baraf muy tasniya lisim ak jamono muzakkari salim tasniya lisim lo ko xamee nga ne moy li rek la yaa te alif ak nun kasra mujj ca baye nun kasra tasniya lisim nak alif lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay jamal jamono muzakkari saalim loo ko xamee nga ne moy lo fu yaa te waaw nun ko fataa mujj ca mbaa yaa nun ko fataa jamono mu dakkal saalim nag waaw lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay xafade asaf nun dana nekk màndargam nasab ci benn barab dong mooy fi'al juróom fi'al juróom nag moo di tafxalaani yafxalaani tafxaloona yafxaloon tafxalina fi'al juróom nag nun lañu rafaaye asaf nun lañu nasabe asaf nun lañu jasame xafad àttale ci i'raab boo xam ne boko lambé doko daj boko xolé doko gis way amna yetti mandarga yo xamné fu mu fi wara nek bo fa démé fekk fa kenn ci ñoom jëmmi xafad ci bop moy atté bi nga xamné boko dé xol doko gis boko lamb doko daj waye nak fu wara taxaw rek amna yetti yu ko fa jëmmal yo xamné kenn ci war nañ ko fa jëmmal té moy ben kasara parce que ci suuf mo ci gëna siiw ak ya ak fatah kasra dana nek gam xafal ci ñetti barap di ci mufrad bu nango soppiku bi ben jamu taksir bu nango soppiku bi ñaar ak jamu mani salim di jar nga ci boole bu nango soppiku ngir ñu bañu faati mokal gi ñu delu ko waat di ci mufrad lo ko nga ne moy li tektale len di mufrad nak li rafaaye fatali nasabe kasra lay xafade bu nango soppiku bo déggee bu nangoo soppiku rek ma ngay delu ci la nga mujj wax mi kasra lay xafade waaye bamul la fay mom amul soppi ko fatal na amun amul soppi ko waaye nag kafale xafla ji mom moy sart bu nango soppi ko jamu taksir lo koy xamé gané moy lopp yar té waaw nun gu fata mujju ca yaag nun gu fata mujju juta lihit fuk taju tal hit mujju ci jamu taksir dam de rafaay fatali na nasabe kasra lay xafade bu nango soppi ko patay bu nango soppi ma nga del ci rek kasra lay xafade ji nga wax rek jam maanu salim lo nga xamé nga né moy lopp yaar ci alif ak tabu tali mujj ja jam maanu salim nak dam lay rafaye kasra lay nasabe kasra lay khafada ya dana nek mandargam khafad ci ñetti barab simi juroom tasniye sim ak jamhul muzakkar salim yett kenn ku ci nek bu waré khafad ya la koy defee ñu baam waat nañ ko daan waxé lismi juróom moo di abooka axooka xamooka fuuka zumaalin xanaa ñu leeralaale ne boole giñ ci boole ka ni abooka wala axooka kaji wala xamooka wala fuuka ak zooji ñu boole ci maalin du ci ab sart leneen lu bokkut ka mën na caa jokku leneen lu bokkut ak maalin mën naa jokku ci zooji la nga waxan nañu dal rek mooy sart ba tasniya lisim loo ko xame nga ne mooy luy tegtale yaar te alif ak nun kasara mujj ca mbaa yaa ak nun gu kasara tasniya lisim nag alif lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay xafade jamxul mudakkar saalim loo ko xame nga ne mooy lu ëpp yaar te waaw nun gu fataa mujj ca mbaaya am nun ko fata jamul mudhakkar salim nak waaw lay rafaaye yaa lay nasabe yaa lay xafade mu des fata fata dana nekk màndargam xafad ci benn barab muy maalayan sarif maalayan sarif foo ko fekk day nekk lisim mufrat mbaa jam taksir waaye nag bu nanguwute soppiku du xafade kasara tey xafade fata daañu wax na lan ngay xàmmee kan moo nangoo soppiku ak kan moo nanguwut soppiku ak luy sabab ñu baat bi daa bokk ci maalayen sarif maanaam bokk ci ya nanguwuta soppiku maalayen sarif nag tàmm lay rafaaye fataalee na sabe fataalee xafade li feek taarawul baa mu daaf maanaam bu taarawul daaful rek day xafade fata waaye nag bu xasee taaram mbaa mu daaf daal di xafale kasara mel ne ku nangoo soppiku kon nga jàll si ci jasam jasam àtt la ci ihraab boo xam ne doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko waaye am na yaari màndarga yoo xam ne fu mu fi war a nekk boo fa demee fekk kenn ci ñoom muy sukkoon ak azaf maanaam jasam àttale ci iraab boo xam ne làmb ko taxu koo daj xool ko taxu koo gis waaye bi nee luy àtteem jasam rek faaw kenn ci yaar yi war ko faa jëmmal muy masque ak sukkoon wala asaf asaf mooy dagg sànni sukkoon dana nekk mandargam jasam ci benn warab mooy fi'lu mudaari'u mu wérug te dara jokkoo na te ci lu koy boole fi'il juróom mbaa dara jokkoo ci noonu tam mbaa dara su boobaa rek bu jasam sukkoon lay jasame te boo tulub lam kun lam nashrab lam naakul mi wey fil mudaari war mi dara jokku ci nak dam lay rafaaye na sabe sukoon lay jasame adaf yar la adaf araf ràgg ak asaf noon adaf afrag ràgg dana nekk màndargam jasam ci ben barok moy fil mudaari mu ragu mu te dara jokku ca xaali mudaari mu ragu mi dara jokku ca mom tan ko misal da wara a jasame dak araf ràgg wa mom foko fek dam lay rafaaye fataal fataaleen sabe adaf araf ràggoole asaf asafanun dana nekk màndargam jasam ci benn barab muy fixali juróom fixal juróom nag moo di tafxalaani yafxalaani tafxaloona yafxaloona tafxalina fixal juróom nag nuun la ñuy rafaaye adaf nuun la ñuy nasabe adaf nuun la ñuy jasame su agsee foofu jeexal nga xaaji ihraab nga ñëw nag ci tomb yi ci topp xaaji wax ñent la kalam kalim kalimatu qawlu kalam sart nañ ca ñenti sart ba ci njëkk mooy nay lu génne ci gémmiñ te ñu toggale ko muy ñaar te mu am njariñ muy ñett te ñu jublu ko muy ñeent am lu kalam, kalaam am lu kalim am lu tudd kalimat am lu tudd xawlu kalaam yi nga njëkk wax moom am na ñeenti sart ba ci njëkk mooy nay lu génne ci gémmiñ moom lay njëkk wax ba ñu ne nay lu génne ci gémmiñ la bind ak junju dàqu ak lu nuroog ñoom dañ ko waxe noonu waaye liñ ci lu rek mooy nga andi baat wane ne boo doon dessin wala ngay liyaar ni ab lu xam la waxit bu ko taxadon kalam faaw rek nga andi baat ndé sax bu andé baat bind ko it du ko té don kalam ay rek baat mo mënu ci ñak té ñu togalé ko nak bañu né té ñu togalé ko togalé yett la ah, togal limi firi ci wolof moy ñu manam boole ay baat day wone bo ben bar képp yem ci mom wax ba du daanu kon fa lu mu néew nga indi ñaari baat mbaalu ko kon toggale googu mënu cee ñàkk léegi nag façon boole baat ñett la mooy bu ñu nee ko toggale yett la toggaleeg zaafe toggaleeg jaxase toggaleeg wéere am na ñetti xeeti boole baat mooy yooyu ba ci njëkk mooy toggaleeg zaafe loo koy xame nga baat baat bu mujj ba mel ci bu jëkk ba ni nunu ni di mel ci lu ko jëkk nunu ni nu mel ci lako ko jëkk nga ne day taxaw mel mir te lako ko fete wo irab ba maanaam soo boolee ñaari baat te baat bu jëkk bi rek moy sopp ko ci ihrab bi waye baat ñaareel ba mom te taxaw rek nekk mudaaf lehi du ci jóg mukk mukk ne abdurrahman abdullah abdul qudus nga xamne abdu abda abdi ci nek man na nek waye allah ba ca top wala arrahman ba al qudus mom day taxo rek mudaf melne nun wi nun wi moy fiñ mas yaari mas ko and ba nga fay jangale te ken du ko bindale lolu moy nun wi foko fek nam doone and du ci yok muk lako jitu nak man na soppiku nek liñ misale wo saydun saydan saydin du da di mo soppiku way and ji mom ànd ja jubu ci benn yoon soo boole ñaari baat nag baat ñaar bu mel noonu nga xam ne du soppikuwul benn yoon taqoo mudaafu ilayhi bu jëkk ba nag mooy soppiku ci ixraab bi loolu mooy toggaleeg daafin toggale jaxase moom loo ko xamee nga ne mooy boole ñaari baat te baat bu mucc ba mel ca bu jëkk ba ni taa i ta anisil ismi di mel ca la ko jëkk maanaam soo boole ñaari baat yoo xam ne ixraab ba day feeñe ca baat bu mujj ba xam ne baat nga xam ne baat bu mujj ba mooy soppi ko ci ihraab bi waaye bu njëkk bi moom du soppi ko benn yoon ci ihraab bi kon daa safaanoog toggaleeg baafe mel ne bu nekk ci lisim niñ ko misaali foofu rahmatum rahmatan rahmatin xam nga tun moom soppiku ne waaye li ko jiitu mi ma soppikuwul benn la taqoo boo ñaari baat mel noonu nga xam ne ihraab ba day feeñ ci baatu ñaareel ba bañ a feeñ ci bu njëkk bi loolu mooy toggale jaxase mel ne baax la bakku ak mel ne New York baax la bakku turu dëkk la baax la baat la bakku baat la waaye bakku ji rek mën naa nekk bakku mën naa nekk bàkk waaye baax la ji moom du soppi ko wala maat yi karabu turu nit la karabu ji mën naa nekk karabu mbaa karaba waaye maat yi ji moom du soppi ku nekk maat yi rek kon foo boole ñaari baat rek te ci ihraab bi baatu ñaareel ba rek mooy soppiku ci ihraab bi waaye bu njëkk bi du soppiku mooy toggale jaxase kon muy safaanoog toggale daafe tey dañoo laajte woon fee daay te alisul ismi nu muy mel ci la ko jëkk nga ne day féetewoo ihraab ba ci la ko jëkk taqoo men bir wala moo doon daaneel toggale jaxase toggale wóore nag mooy boole ñaari baat te fab maxnaam benn baat ba wér ca ba ca des moo xam maxnaam baat bu njëkk ba nga fab wér bu mujj ba am maxnaam baat bu mujj ba nga fab wér bu njëkk ba toogale wéeru mooy wax bu daanu foo ko fekk day am loo wax ak koo ko wax jëmale ca moom moo tax mu ne mën naa am nga fab maxnaam baat bu njëkk wér bu mujj ba tey mën naa am nga fab maxnaam baat bu mujj wér ca bu njëkk boo fabee maxnaam baat bu njëkk ba wér bu mujj ba mooy lu mel ne xaama xaama taxaw na Seydou Seydou boo ko waxee taxawaay bi muy xaama ji muy baat bu jëkk bi maanaam baat bu njëkk bi muy xaama moom ngi wér ci Seydou mi baatu ñaareel bi boo fawee maanaam baat bu mujj ba wér ci bu jëkk ba nag mooy lu mel ne Seydou qaayimun maanaam boo nee Seydou Seyd qaayimun aji taxaw la qaayimun ji xam mooy tekkib taxawaay moom nga wéer jëmee ci Seydou ni Seyd a ko def xam ne kon toggale wéeri foo ko fekk rek mooy wax bu daanu te faaw foo am na loo wax jëmale ko ci kenn. toggale wéeru nag foo ko fekk yett daje na ca musnad ak musnad ilayhi ak isnad maanaam toggale wéeru foo ko fekk dana am loo wax ak koo ko wax jëmale ak na nga boolee bañ xam ne ñoo ànd te maanaam baat bee dellu na ca bële musnad mooy kañ wéer mbaa nga ne lañ wéer musnad ilayhi kañ wéer jëme ci moom isnad mooy wéer ga maanaam musnad daal mooy la ngay xibaar mooy la ñuy wax daal di ko àtte musnad ilayhi mooy kañ ko àtte jëmee ci moom léegi bu dee xaama saydun saydun mooy musnad ilayhi moom lañ wax jëmale ci moom xaama ji mooy musnad mi isnaad na mooy ni nga boolee ñaari baat ñi bañ xam ne xaama ji ci saydun la dellu saydu mooy jëf taxawaay bi bu dee saydun xaayimun xaayimun ji mooy nekk musnad ndax mooy la wax mooy la ñu àtte saydun jëko jiitu mooy mustad ilayhi moom lañu wax jëmale ci moom ni nga boole ñaari baat ñu ba tey mooy isnad musnad yaar la fixal ak xabar foo fekk rek fihal niki xaama wala xabar niki xaayimun xamal ni musnad la musnad ilayhi yaar la muftada ak faaxil foo fekk niki saydun bi ànd xaayimun mubtada la ak foo fekk niki saydun bi ànd xaama lu fekk rek xamal ne musnad ilayhi lañ isnad nak batay du ko moy wër rek moy ni nga boole ñaari baat ñi bañ xam ne me ma nga delu ca kele te am njariñ mo ci top bañu ne tem am njariñ njariñul wax tula xamuko nga di ko xamal kooku xamni am na njariñ manam xamuko nga xamal ko ak mu xam ko nga xam ko te xamul ne xam nga ko nga di ko xamal ne xam naa ko maanaam xam nga ko xam na ko waaye daa defe ne xamoo ko kon nag boo ko yëgalee ne ko xam naa ko loolu am na njëriñ ak mu xam ko nga xam ko te xam na ne it xam nga ko waaye nga ko ko wax ngir mokk akuk xam nga ko xam na ko xam na xam na ne it xam nga ko waaye wax nga mooy sa warugal rek nga def ko léegi bo wax sa naa ko yaa ana xabduka almudnibu almiskinu faxfir lii yàlla man sa jaam bu bari bi bàkkaar bu doyee bi day maa ngi ni jéggal ma loolu xam nga ko yàlla xam na ko te it xam ne xam nga ko kon nga di ko wax nag mokk fi kanamam ak toroxlu fi kanamam rek kon mooy njariñ la waaye du xamle lu kenn xamul ci yéen ñaar bañ ne tam jublu ko nu moo ci des bañu ne tan jublu ko la waxi dof ak kuy nelaw dàqu ak nuroog ñoom ñaar bañu ne kay wax na jublu jariñ ko muy waxal kon ku dof rek di wax mbaa mu nelaw rek gént di wax jublu ñu jariñ kañ waxal kalim sart nañ ca mu mat ñetti baat maanaam boo andee lu mat ñetti baat te wax ba daanuwut amul njariñ moo tudd kalim ki boo ne in hadara ahmad su ahmad tewe in batla hadara batla ahmad batla in araf la hadara fi'al ahmad lisim la mat na ñati bat te bo ne bu ahmad ñewé do wo ci dara kon wax pa du daanu lu mel nonu kalim lay tuddu sa yu ande lu mën ñati bat wax ba amul leen wul rek kalim lay tuddu kalimatu moy ben bat so ande ben bat do nga yem ci in kesse wala ahmad kesse wala beneen baat képp yem ca loolu moo tudd kalimatu xawlu mooy lu génn ci gémmiñ maanaam xawlu moom boo ko waxee dana ambaale kalaam ak kalim ak kalimatu ndax lépp lu génn ci gémmiñ rek xawlu la waaye nag soo indee ñaari baat ñoo xam ne wax ba amul njariñ xawlu képp lay mën a tudd niki boo nee sayaaratu xasanin oto asan wala farsu masjidin laltaayu jàkka xam nga mënoo ko wooye kalaam ndax mataliwul ay sartam nekkul wax bu daanu mënoo ko wooye kalim ndax matul ñetti baat mënoo ko wooye kalimatu ndax ëpp na benn baat kon lu mel noonu moom xawlu rek nga koy mën a tuddi waaye xam ngaa jàpp ne bu dul daal moom xawlu soo ko waxee rek dana yóbbaale yépp yëpp tomb yi foofu la yem kon nag nu tàmbali yaxub téere bi li bind ci kaw mi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman awna ya moyen wa bika sahin lolu moy li nga jëk ihrab ci top nak kon moy qala waxna al qadim lagi katu yonent bi al habdu jamu yalla ba wa huwa mom ahmadu turam modi ahmadu bamba wa yahmadu te sant rabbahu boromam bilantiha ci ludul daytal sëñ bi taalif day njëkk xamle boppam ne mom day day jaamu bi yalla di liggéeykatu yonante bi tuddu ahmadu bamba mom nak moy taalif tay tàmbalee ci sant yalla cant go xamni amul fu mu yam li wax nak moy xam nan ngi sant ak cant liman ñeel yalla mi nga xamne jaala def na an nahu fil kalaami ci arab mitlal milhi muy kem xorom fi taxaami ci aw ñam day tàmbalee ci sant yàlla def nahu muy defar arab ni nga xam di defare togg te sax yenn ñam yi mën nañoo ñàkk wae te arab moom paaw rek ñu sàmmonteeg naxu ba mbaa tuma salatuhu top doli teralam ma salani and ak doli wolu ala nabi yalna nek ci yonante ba wa alihi ak ñoñam al kirami ñe dewe tedd dafa sant yalla tek ci julli ci yonante bi ñaanal ko teranga ak jamm mok mbokam yu bax ya wa ba'du gana sant yalla julli ci yonante bi fal maqsud lañ jublu ndumul modi aw way qad bahara nat ci abtar moy ëpp na doole ci ab taaru fi haq di ma ci fas la nga xamne mba ci way la nga xamne al fatawa ju bax ja ibnu daawud te moy ibnu daawud natara wasaron nako gannaaw sant yalla julli ci yonent bi lima taxa jog moy la borom aajuro wasaron mom la bëgg way aqdu nasri moy fekk lu ñu wasaron yow nga soppi ko way loolu la bëgg def nak neena aajuroom nazamtuhu wayna ko taniyatan yoonu ñaarel muhtasiran mbir mu may aji gàttal ko wala muhtasaran mbir mu ñu gàttal li ko na ngir mu nekk naafi andi aji jariñ kulal wara képp ci mindee fi bu ne wayna ko yoonu ñaarel day mel kon da ko njëkkoona way moom ci boppam dellu ko wayaat waaye nee nañu bëgg wax ne ku ñu wax Muhammad ibnu Abba te bokk ci waa Moritani njëkkan naa woy aajuróom bile waaye moom nag moom sëriñ bi mu ngi jóg di ko woy woyu ñaareel ba nopp boole ci gàttal ko ndax bëgg rek ñëpp man cee jariñu ndax am na ñoo xam ne taal bu xaw a gudd duñu ca sawar samaytuhoo tudde naa ko saxaadata tullaabi texeg way sàkkuña waraaxatan tey noflaay li taalibil i'raab yi ñel aji sàkkoo xam i'raab bo ne daa koy tudde texeg dongo yi texeg ñi xam-xam ak yàlla di téere boo xam ne day jàngale naxu te yombal i'raab lool nga ko bu baax a baax fi saasa te doo sonn i'raab nag mooy baat yi boo xool seenu mucc day faral di bare bare jëmmi baat bi rek bu taxawee fii la muy maas ci ak mujjam ak bu taxawaatee feneen la muy maas du bokk léegi boo xoolee ci kaw rek bi nga gisee bismillahi muy hi ak bi nga gisaatee wa sallallahu muy hu ak booy jàng ittaqullaaha mujje laaha gis nga noonu ni mu wutee nga xàmmee loolu nag fu ne nga jox ko àtte ba ci benn benn baat yi loolu mooy i'raab bu loolu nag ci lag mën naxu tàmbalee soo ko manee rek kon dal ngay tàmbalee man naxu bu baax a baax loolu la wax ne nag moom téere bi da ko yombal ba nga xamee ne yow mi koy jàng daal danga gaaw man lool te doo sonn jaalahu yàlla na ko def allahu yàlla alxanimi aju doylu wasilatan muy jottaliku kaay li faw sinaa ñeel sunu texe ibadatan te di ak jaamu maqbulatan guddi guñ nangu bi jaahi sayyidil waraa ci daraja sangu mbindeef yi muhammadin te moo muhammad sàllaa yàlla na dolli nga allahu yàlla alayhi ci moom toolal abadi diirub dappet wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak ay sahabaam alxullaa si ña di way sell maaqu bi li fekk nangoof na alxamalu jëf ja bil ixlaasi ci sababu sellal day ñaan yàlla mi nga xam ne jeexlewul dara mu defal ko téere muy lu koy àggale ci texé tayit def ko muy jaamu yàlla gu ñu nangu ci darajey sangu mbindeef yi te moo muhammad yàlla na ko yàlla doole saxalal teranga, mooy mbokam ak sahabaam yi nga xam ne ñu baax lañ ñu sell lañu li fi nga xam ne daal ku jëfe jëf dañ ko diglee te yàlla rek tax yaa ngi am nangulug yàlla yàlla na yàlla saxal salaamu ci yonante ak ak sahabaam li fe nga xamne rek jëf jangay dëppook nako yoon rëdde te yalla rek tax boole ci faaw rek mu ko nangu insha allah li fe loolu ngi am nak kon yalla yalla saxal yonent bi teranga mok ay mbokum ak sahabaam loolu moy tarjumaani téré bi kalaamuhum seen kalaam lafzun baat lay doon murakkabun budi mu togale mufidun budi aji jariñ bil qasdi and ak jublu manam kalaam ni ko jangewon ci tomb yi amna ñeenti sart faaw nga andi baat soo dessin wala nga liyaar ni ab nu dañ mën a xam li nga dessin ba li nga liyaar loolu wecc na wax waaye duñ ko wooye kalaam faaw rek nga andi baat baat ba nag boo ko waxee ci làmmiñ ak boo ko bindee yépp moom baax na du ko tee doon kalaam nga andi nga baat waaye itam doo ci benn baat faaw nga toggale toggale mooy composé maanaam bañ yem ci benn ndax jàpp ne benn moom mën wax wax bu daanu lu néew mat ñaar mbaa mopp ko kon da nga andi baat te bañ ci benn muy ñaari sart ba ko ñetteel mooy nga dem bam daanu ndax mën nga andi baat teg ci beneen baa yeneen te lu tee ki nga waxal moom di xaar ba xam loo cay teg ndax du xam la nga wax su boobaa nekkagul mu di ki boo yemoon ci inna haasa naka kii jawi yi bëgg misaale dana nekk lafzu dana nekk murakkab ndax inna baat la ak haasa waaye nag du tee koo koy xaar ba xam loo teg ci naka kii nga dem ba mu daanu nag ne losaan yi dun mu daal di xam na nga ne kii day aji taxe la waaw kay looloo ko tax nekk mu fiid boo ca doolee nag kii wax jubloo jëriñ ka mu waxal nag mu daal doon ñeenti sart kon naxu xawli ka noo soox ja nga ne inna haasa naka kii la yi dun aji taxe la inna haasa la saa lafz la murakkab la mufid la tayit momi wax jublu na jëm kam waxal kon ñeen ci yépp na ci kon man nga ne kalam rek moy wax bu daanu bu sar ci yoyu téri ko tuddé al kalam téri ci rest ko tuddé al jumlatu al mufidatu aqsamu ay jimu ñatt la kon waxal ne ismun moy lisim na bob Garna gar moy feñ rek